dama doon dama doon terminer ci li président Macky Sall def kii dagg xol yi dama doon terminer ci ki nga xamante ne sama micro mi ngi baax est-ce dama doon terminer ci ki nga xamante ne da doon wax su doon mën a te bañ ca eggee defuñu lu ñu war a def dama doon terminer ci ki nga xamante ni bañ ko tëjee ba tey jàmm ngay dégg salaam déggoo xeex déggoo taal te fu la neex dem nee na Aïcha le militantisme c'est quoi l'engagement c'est quoi da ngay am sañ-sañ bi nga jël sa xaalis dugal nga jënd sa carte nga ñeme ko wax nga dem plateau défendre ki nga àndal Macky Sall la àndal am na ñoo xam ñeme wuñ ku ñu àndal dañ naan journaliste lañu dañu naan chroniqueur lañu. ñeme wuñu personnel. je voulais juste donner des exemples li nga xamante ni programme la yu président Macky Sall teg. mu jaar sur le capital humain. mu jaar si li nga xamante ni dañ koy tuddee un bilan bi nga xamante ni c'est même pas immatériel. mais ce programme là tu mais <laughs> ce programme tu l'as combattu. ce programme tu l'as na naan ndox. non ce programme tu l'as combattu. wala sa xol day daj. ce programme tu l'as combattu. dinaa tontu de. waaw ce programme tu l'as combattu. ba pare. non non mais ce programme euh, reconnaître tu combattu. dinaa la may potu ndox tout à l'heure vous parlez du plan Takkal alors que le plan Takkal bi muy am yow boobu tu étais de de leur côté Macky Sall xam sincérité aussi hmm. booy défendre dara yow ba nga nekk ci plan Takkal bi muy xuy xamaj da nga waroon reconnaître parce que tout à l'heure quand tu disais que ne le le ça a évolué boobu c'était sous votre régime. vous avez rejoint le régime quand duñu ah ah, mais c'est ça aussi non il faut aussi vraiment que Diéguy arrête vraiment affaire mi muy def quoi boobu il est en train. il dire aux gens vous êtes de mauvaise foi vous n'êtes pas galant vous n'êtes pas courtois mais il faut qu'elle arrête quand même. voilà non non non cest quand on est transhumant cest à on est obligé chaque fois de sur les plateaux pour xoolal sa xol dafa dagg ta tout fait pour être nommé. non sa dafa dagg parce que t'as tout fait pour que ñu jël ci ministère yi ñu ni bëgguñu la. non non non sa xol dafa dagg parce que tu ne supportes pas <laughs> une femme qui ose dire ce qu'elle pense. mais ah, non sa xol je ne supporte pas les transhumants je ne supporte pas les transhumants. je ne supporte pas les transhumants ah. nga. waaw d'accord je ne ma non non <laughs> je suis une libérale te dama koy àggale oh. ànd ak président Abdoulaye Wade ba mu saf

le père du libéralisme africain ma ànd ak moom mu pare mu pare ñu dem si le libéralisme ma tànn parmi les c'est digne héritier du président Ablaye Wade ma tànn le président Macky Sall sa xol après avoir insulté. te a dit qu'il ne veut pas de toi.

dépassé quand même day tedd ba faw on ne peut pas être là débat personnel on ne peut pas le faire le président m'a convaincu et je suis avec le président je peux pas être là accepter un débat personnel entre deux personnes yoo xamante ne dañ leen invité pour ñu mën a toog waxtaan qui n'est pas content la chaise Aliou le meilleur président <laughs> le président Abdoulaye Wade est le l'africain le panafricain le président Ablaye Wade est le père du libéralisme on débat sur la justice munoo ko yaa ko indi yaa ko indi et je l'assume parce que non parce que non parce que elle n'est pas dans le débat elle n'est pas dans le débat justement elle n'est pas dans le débat. C'est une fierté elle a pour le moi. droit d'apporter sa réponse. Voilà, c'est le meilleur président de l'Afrique. Aliou, s'il te plaît. Je suis fière de dire que le président Macky Sall. Mais tu as apporté ta réponse. Tu as apporté ta réponse. Mais laisse-moi terminer par ça. Oui, oui, d'accord. Mais tu as apporté ta réponse. Il faut qu'on passe à autre chose aussi. Je termine par cette phrase. Ah, on va pas être là à s'énerver tout le temps comme ça. Je suis fière de dire que le président Macky Sall est le président le plus respecté dans le monde entier. Ça, Biden même lui a donné sa place aux Nations Unies mu wax. naanal ndox nga muñ. Ah. très bien ah. mais ah, man en tout cas loolu. man de j'ai jamais traité la présidente d'avoir volé l'argent. c'est passé à Ziguinchor Aliou. <laughs> bon moi je crois est-ce que tel jigéen xamoo jigéen. ah d'accord c'est c'est très difficile parce que. et c'est comme ça il est comme ça heureusement que jigéen nga wax. ku fi ñëw mu attaqué la il est comme ça. il est comme ça il ne supporte pas que les femmes disent ce qu'ils pensent. waa léegi jéegi bàyyil Aliou mu wax. voilà. léegi lan la woon mbir mi du coup. ce qui s'est passé à Ziguinchor hmm? Ziguinchor. oui. Bah, <laughs> je crois qu'une décision de justice a été prise. Euh, euh, en tant que républicain, je pense que ni dañu war a respecter cette décision la bu dee dafa am recours yu war a am na am ba si cappaandaw ga. on verra on verra la suite. Eh, mais man jarul sax ay polémique wala di toll ci benn niveau boo xam ne. ci ay ah, waxtaan ci ay ma ma je pense que ni loolu loolu waxtaan boobu ay cinq minutes la waroon durer parce que décision de justice la. am na li xew xew na eh ben on verra la suite. taw bu recours bu naree am 30 secondes. juste donner l'information que le Sénégal livre son premier satellite en novembre. voilà ah. les informations qu'il faut partager li moo neex si xol neex-neex yaa ngoogu. ndeysaan da baax nga wax nañ wax neex-neex. merci beaucoup Sow. oui Aliou pour toi. non mais euh, je pense que euh, justement Aliou am nga fou rire nag ça ne va pas marcher hein si si on le fait comme ça mais c'était le dernier point euh, quand même et je pense que temps bi aussi jeex na on va peut-être euh, s'en arrêter là. un juriste qui ne se prononce pas sur sur une affaire oh judiciaire. non yow Aliou Sow tu m'as déçu quoi. Ah non parce que xamul tax parce que ñu commencé di continuer dañuy nekk di coupente. c'est pas coupé surtout que c'est une décision. mën ngeen ah. coupente. mën ngeen coupente mais dans le respect. dans le débat et que tant que ce n'est pas de personne. voilà mais mais mais oui mais mais xam nga ku ñeme na jënd kaar li mu wax aussi c'est important. ku la nit xam ni ki kii transhumant la. si man nga ñëw nañ jàkkaarloo léegi nga xam ne man ragaluma la. bugaan nag dama ko rus tey ndax dafa nekk si dëj. non bul wax ak bugaan waxal ak man barki salaatul fatiha. waxal man maa ngi bu woon loolu ma tontu la lu dul daj. waxal ak man rek. ma jàkkaarloo waaye dafa am lu ma jëm. waxal ak man de. Mame Abdou Aziz Dabakh nee na nañuy seetante baax baax yi. waxal gis nga tey bugaan ak kullu ku bokk si bugaan baax ba rek. laay wax ci moom non ki li mu fàttali dafa am solo. man nëbbatu ma tout le monde ma ko ne man maay hmm. man xamoo ma yow. Euh, moi j'ai été élu avant d'être nommé. Ah. léegi beneen point lan la. bëgguñu jigéen bu xam li mu bëgg. beneen point bi lan la te nee laa invité. bëggu leen ko ah oui dañ may xëccoo. allez ah? sama kaw lal ni daw ma. maa yi di wax lu baax di seddante lu baax bugaan yàlla jàmmam yàgg. waaye yow dinaa la tontuwaat léegi di nga ñëw wax ñu ndax da nga bàyyi Mansour Faye wala. comment ah, ça se passe. Euh, foofu vous allez terminer par ça loolu mooy nekk sa mot de la euh, fin. merci chérie. d'abord di la di la di la gërëm ci invitation bi. Euh, di wax sénégalais yi que euh, ñoom ñoo moom seen carte d'identité nañ ko téye incha allahu rabi. voilà euh, format de parenage bi nga xam ne ñun dinañ ko def sax dina wuteeg yenn format de parrainage yi. le président Ousmane Sonko n'a pas besoin d'aller dans les maisons pour chercher des parrainages day toog fi mu toog ne nit ñi ñëw leen nit ñi di rang pour ñëw pare parrainer ko donc nous loolu c'est déjà réglé l'autre chose mooy mu wax patriotes lii les patriotes donc du Sénégal et qui sont dans la diaspora incha allahu rabbi on va euh, gagner ces élections